xalaqal insaana allamahul bayaan wassalaatu wassalaamu ala mamduuxi fi lqur'aan walmabuusi raxmatan lil insi wal jaan sayidina muhammadin saaxibi shariicati walburhaan wa ala aalihi wa saxaabatihi zawil hidaayati warridwaan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yu tedd yi mbokki taalube yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo nuyo islaam bi gën a tedd di assalaamu aleykum wa wa barakaatu di jiital ci bu naa ñu am gan gu tedd di Cheikh Bassirou Dieng di jàngalekat fële ca diwaanu Ndindi nekk tamit daa yi di ñu miin ci télévision bii di Ndindi TV ak fu ci mel ni Saxum tey ci kàttanu yàlla ak nammeelam ñu nam ma ànd ak moom ci waxtaan yu jëm ci mbirum daara kon su ko defee Cheikh euh, Bachir ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi lay seetaan aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaaniirahim wasalallaahu ala seydina walana muhammad wa ala alihi wa sahbi wasalam tasliman waaleykum asalaam wa rahmatullah sëriñ Seex ñu ngi lay delloo nuyoo bi ak ziyaara bi tey jiital nuyo bi ak ziyaara bi ci Seex Muhammadul Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak bépp jullit fu mu mën a nekk eh, di nuyu tey ziyaar baax itam ñi nga xam ñoom nga ànd liggéey bi yëpp di rafet liggéey bi ak taxawaay bi te mooy waa Daaray Kamil TV incha allah ak ci jataay yu am solo yi nga xam ne yéen koy amal rawan ci rawa rawatina jataay bi nga xam ne mooy jataay bi jëm ci waxtaan lu jëm ci wàllu daara daara la ci aju baax di am mbégte mu yaatu ci wuy si seen bi ngir ànd ak yéen liggéey boobu incha allahu taala jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Bachir Dieng ci nuyoo yu am solo yooyu kon fi ñuy tàmbaleeg mbooleem du yu fi ñi am muy gan yiñ fi am mhm. ci ànd ak ñoom ci lu jëm ci seen daara ak ya aju mhm. waaye balaay loola dañu lay laaj ba Bachir Dieng moom jaar-jaaram ci wàllu njàng mhm. fan la jaar ci wàllu njàng buñ ko bëggoon a xam waaw Cheikh Bachir xam naa buñ bëggee xam jaar-jaaram ci wàllu njàng bi yàlla dogalee ñu toll ci waxtu dal jàng sunu nijaay moo ñu dalal jàng ñu ngi wax Sëriñ Basiru Jaxate bi yàlla dogalee mu jàngal ñu bañ sori ba toll ci lañuy wax feri ijji eh, mu ñu ñu jëlee ñu foofu sëriñ Diir moom sëriñ Mour Boussa Dieng boole ñu ak doomam yóbbu ñu dëkk bu ñuy wax Touba Afi Caaneen mu nga nekk ci Saalum mu nga nekk ci Saalum fu sori ca Saalum la eh, day dëkk waraar boo xam te daanaka du faral dégg koo tudd Afe Caaneen du ma faral di ko dégg sax ci rajo wala du ma leen dégg fenn ah. waaw dëkk yoo ko wër ay ay dëkk yi riba bàpp fu ñuy wax riba bàpp ay riba kojal riba escale dëkk yooyu ñoo ko wër hmm. fu sore daal foo xam ne moom fu sore la ci réew mi wax dëgg yàlla hmm. waaw foofa nag ba ñu fa yóbboo itam doom la ñu boole yóbbu ñu fa ku ñu fa daan jàngal fi mu ngi tudd Moussa Thian la tudd suñu Moussa Thian Thian la sant ay taalibe waa kër ñang lañ waaw ñoom ñoo ñoo féere ci dëkk boobu waaw euh, euh, ñoom nag bañ fa nekkee foofu def nañ fa lu gàtt gàtt daal juróomi at yi moom bu ma tamit dugg nañ ca dugg nañ ci foofa nag euh, jàng nañ fa ba ba nga xam ne li ñu li ñu defoon wàcc bëriwut ñu jóge fa foofa nag mën naa ne lépp lu ñuy mën ci liggéeyu góor moom foofa lañ ko mënee lu góor di mën a liggéey rek rawatina jëm ci nga xamee dëkku àll yi muy jëm ci wàllu xeetu mbay lu ci góor di man rek foofu lañ ko mane nga xam bañ fa jugee itam donte eh, mokk lañ fi wàccuwuñ fa waaye lu jëm ci tàggat yaramu góor moom ba mu ñemee coono ba xam ko man ko di ko jëfee loolu moom jëlal nañ ko fa bu baax a baax donte wàccuwuñ fa mokk lañ fa nag bañ fay jugeet bañ bañ fay demit ci ci ci saar yu suufee lañ tolloon rek bañ fay jógee tamit demoon nañ ba tuuti moo ñu tere wàcc hmm. bañ fa jógee tamit yàlla dogal na ñu dem ci fu ñuy wax buntu mbar eh, buntu mbar ñu gën koo xam ci daaru waxaab jeng ñu gën koo xam ci buntu mbar hmm. mu nekk ci ginnaaw kolobaan ginnaaw kolobaan gi ginnaaw tiib kolobaan saalum gi hmm. ginnaaw tiib foofu dëkkub suñ maya suñ ummi jeng la suñ maya suñ ummi jeng mu jur wajuru góor sëriñ Baara Jeng doomam moo fa nekkoon yor fa daara fala fala fala wàcce alquran jànge naa fa ba daanakaaral tuwarkàlla lu bare bare falaa ko jànge ci téere bi daal mën naa ne daanaka xaw naa ko fa watoo jàng naa fa lu bari ginnaaw ba it jaar nañ ci Cheikh Mamour Mbackeem Cheikh Mamadou Fadal yàlla suñu borom waaw Cheikh Mamour Mbacke ah, suñu moom say jaxate waaw njaareem nag lañu àggale suñu njàng ci alquran ak xam-xam biñ demee njaareem tu ñi ngi dem ci ku ñuy wax sëriñ Abdou Latif Dieng sëriñ Abdou moom mag la ci ñun ndax moom maam ak suñu maam ay doomi bàyyi lañ sëriñ Mayasin Bala Dieng mooy maam man sëriñ Mayasin Umi Dieng mooy sama maam ci daaraam jooju fa la yàlla doo fa laa wattoo alquran ba ma ko fottoo itam fa la wattu naa fa bind fa kaamil ñetti kaamil laa fa bind ca daara ji doog faa jógee balaa fa fay jógee tamit ci wàllum njàngum xam-xam mi tamit euh, sëñ Basiru Jeng ca ca ca ca njaareem bokk na ci ñi jaar ci wàllum njàngu xam-xam daara sëriñ Fallou Guèye moom sëriñ Souleymane Guèye moom it jaar naa fa ci wàllu la des nag ginnaaw bi ma dikkee Tuubaa samay gëstu bopp laa ko jële hmm. waaye tegub téere bi jàng njaareem laa ko mujj def kon ànd ak euh, li nga jaar ci dëkk yooyu yëpp mhm. ci dëkk àll boobu nga lim mhm. nga xamante ni su ma la déggee dañ daan boole mhm. jàng ak bay mu nekk itam lu am solo ba nga fa jógee tamit noonu nga jaaraatee ci yeneen i loxo ba ni ngay duggee njaarim suñ la déggee itam njaarim fa nga mokkale alquran waaye njaarim googu itam fa nga jàngee lu baree bari ci Mhm. xam-xam charian yi mhm. suñu bëggoon a xam moom sëriñ Bachir mhm. njàng njàngum maanaam njàngaleem alquraanam moom sam njàngaleem alquraan yow suñ bëggoon a xam fañ nga ko tàmbalee njaareem nga ko tàmbalee wala Touba ak ndax danga jaar ci ay daara internat comme ni koy ñenn seen daara yi di ko defee balaa ñuy sanc seen daara ndax jaar ci ay internat di jàngale Mm-hmm. wala ndax yow bi nga jógee ci loolu da nga ñëw rek ber sa daara bopp wala. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu tamit dinañ ci sawar tontu bu baax a baax. Eh, bi bi biñ nekkee njaareem ba jàng wat alxuraan ca biir daara ja lañ tàmbalee njàngale mi ca biir daara ja eh, ñañ fa mujj jàngal bokk ca ña nga xam ne ci jamono jooju ñoo fa ñoo fa nekkoon ay mag ci misaal jamono jooju kilifa dama woo ma ñëw mu a ma ñii dama bëgg nga taxawal ma seenum njàng foofu ci njaareem foofu ci njaareem hmm. nga xam ne ñoo tolloon ci ñoo ñoo mujjoon nekk magi daara ci tolloon nañ ci miin ak mokkal ak yokkat jamono jooju nga xam ne léeg-léeg donga bu nekkee daar ba commencé xaw a xaw a kàllafe tuuti hmm. boo teelee ci waxtu day laaj ay taxawaay mënu ma ñii daal yow yaa ma ci doy yàlla suñu borom doole doole ay leer doole ko gërëm eh, ca ñooña suñu borom dogal ci ñooñ laa jeexal sama jàngale Eh, balaa ma leen a bàyyi ñoom ñëpp it mokkal alquran ci sama loxo ci ndimbal suñu borom hmm. ba yàlla dogalee ma ma ma ma jóge ca daara ji itam ba ñibbisi si gi gii yàlla daa dogal ba may nekk njaareem ñu ñu meloon ci man ndax amuñ ci woon amuñ woon sago ci man wax dëgg yàlla ba ma fay jóge sax jóge gi neexu leen woon ba waxtu yi may wax ak yow hmm. suñu soñoon foofu laay toog def sama daal di jàngale buñu soñoon du fa jóge hmm. loolu suñu borom dogal sama diggante ak ñoom ci cofeel gu ñu amoon sama jëm ma am ko seen jëm ndax ànd bu rafet mm. ak ay taxawaay yu ñu doon taxaw sama jëm mm. am na kuñ fa wax Serigne Jaxate mm. ab la di borom xam ba ma jógee ba ma koy tàggu ko damay damay damay ñibbi Tuubaa tàgg googu ma tàggoon da ko diisoon lool ngir bëggutoon ma dem eh, yàlla dogalee ma tag ko ba dem nag mu ne waa baax na incha allah ba ma demee yàlla dogal ma def weer ci dëkk bi hmm. jàngale ma fenn def ma dara itam hmm. ci la ma woo téléphone euh, ma ñëw fekk ma am na benn internat ci biir këram hmm. boo xam ne ay njabootam la doon jàngal ak yeneen ak yeneen xale ba ma demee mu jox mu jox ma internat boobu ko ci biir kër ga wax dëgg yàlla yoroon wu rafet ñoom it seen nekkin ak man rafet loolu wax dëgg yàlla yàlla dogal foofa it bala ma faa jógee ñaari goneem ya fa nekkoon goneem ya fa ñaari gone waaye mokkalal naa ñaari goneem ci sama loxol bopp xaritam ya fa doon jàngee itam mokkal naa fa kenn ci ñoom ñett dal mokkalal naa fa ñoo xam ne dama jàngal wàcce ñenn ñenn seen njàng yóbbu na ko fa sori wax dëgg yàlla eh, nag ñaari at yu manqué ñaari weer laa fa def ba ma fay demit di leen jàngalit maa leen fekkoon ñu toll ci di jàng ay sumun ka ca rawoon nga xam ne moo ca rawoon ca ña ci ci ci ci robalaak mën koo jàng mm-hmm. ci diggante suñu boon defal ñuy tawfeex ñu mokkal ci ñoom ñett ñëpp mm-hmm. waaw ba yàlla dogalee ñu war faa jógee ñu jóge fa itam nag biñ biñ jógee nag ba ñëw Tuubaa gii dañu ne woon moom duñ demaat di jàngaleel kenn mm-hmm. ci lu ñu dem ni léegi dañuy ubbi suñu daaree bopp ngir jàngale bi ñu demee ndindi ñu àbb genn kër ku jàkkaarloo suñu daara hmm. kon googu soxna ummi ñang moo ñu ko abal soxna ummi ñang hmm. a suñu aafee la woon moom suñu fàllu waaw mu nekk fak doom soxna abi mbakki foofu lañ tàmbalee liggéey bi bañ ko fa tàmbalee eh, lañ fa def yaakaar na ay ay ñetti weer ay ñeenti weer la war a toll yàlla dogal ñu toxu si bi ñu toxosee nag léegi ñu dugg ci biir kër gi comme suñ moog suñ kër ñu jàkkaarloo amugutoon mbaar amul ay garab donc ñoo fa nekkoon hmm. amul daara foo mën a toog léegi ñu ne du tax ñu ñu demaat fenn léegi nañ dugg ci biir kër gi ñu toog ci garab yi di jàngale bu garab gi amee kenn dem ci di toxu di topp kër yi hmm. di jàngale noonu lañ ko tàmbalee. boobu amagul mbaar amagul dara waaw boobu amagul dara hmm. ci kër yi lañ doon topp rek kër miir yeeg kër garab yi. bu tawee fii tooy lu mu tooy tooy tamit du tee ñu génn ci euh, kii bi ci anam yu xawoon na difficile daal ci jamono boobu. waaw ci lañ ko tàmbalee ba suñu borom suturaal ñu nag ba léegi am nañ am nañ bërëb boo xam ne am nañ mbaar moo xam ne wax dëgg yàlla moom lu ta bari bari du tee mas na faa nekk jàng ndox mu bari bari du yàq suñu jàng mm-hmm. jamono ji ñu toll incha allah waaw mm-hmm. ah. jërëjëf euh, mm-hmm. Cheikh Bachirou Dieng buñ la déggee njaareem googu nga mokkale fi nga njëkkee tàmbalee njàngalem alquranul karim ci benn kër boo xamante ni dañ la ko dañ la faa luye maanaam dañ la fa jël nga fay jàngal njaboot gi su ma ko wax noonu ginnaaw ba ci nga ñëwee Touba. Mm-hmm. ci biir loolu am na uh, laaj beneen boo xamante ni. Mm-hmm. xëy na sax weesu woon nañ ko. Mm-hmm. waaye dafa ñu wàcc sama xel muy ndax bokk nga ci siñ daara yi nga xamante ni jot nañu bind kaamil. ak bu ñu bindee kaamil. kaamil yooyu lim bi ci ñaata la. ak. lim kii ab kii bi ngeen ñëw Touba maanaam at bi ngeen ñëw Touba. ba mën a sañ seen daara bopp at boobu ban la. ci ñaari laaj yooyu maanaam mhm. bind ngeen kaamil ak su ngeen bindee kaamil ñaata kaamil ngeen bind mhm. ak bi nga ñëwee Touba ci ban ane lay toll mhm. pour sanc daara waaw yaakaar naa bind kaamil sax dugal naa ci biir bi wax ne fa laa mokkale na bind nañ fa kaamil ñetti kaamil lañ fa bind ñetti kaamil yi ñu fa bindit suñu ba wax dëgg yàlla nekk ci weer lañ ko bind bind nañ la sababoon ñetti kaamil yaat ak taxoon ñu bind ko ci anam bu bu xaw a gaaw boobu tuuti mooy kilifa ga yàlla daa dogal mu amoon ci ñun yéene lool waaw ba noppi nag tegoon ñu foo xam daa kawe lool daf wax ni bu ma xëyee jële gis sama kër damay neex lool bu ma xëyee génn dem mu leen bàyyi naa ci daara ji fa ma dem sama xel day dal waaw loolu daf ma gën a wax bu baax a baax mm-hmm. am fu ma tegoon fu kawe foo xam ne moo waral lool lool la waa daara ji roy waa koñ ba roy loolu ci moom lañ ko gisee moom mi nekkoon kilifa ga hmm. eh, ñetti kaamil yi fi bind tamit bañ bindee dañoo dañoo dañoo jël benn ba jox ko ko hmm. beneen ba ñu jox ko taawam bu góor ngir waa daara ji seen bopp ñu mën di ci jàng kaamil di ci jàng ngir waa daara di ci jàng beneen ba na ñu indi ko suñu waajur jox ko ko ah. waa kaamil noonu lañ ko séddalee ah, beneen ba suñu waajur lañ jox ko ko hmm. eh, boobu at bi ñëw fii nag di sanc daara ji fii Euh, xam naa daal ci fin 2020 waaw mois bi laa jëm exit waa di bëgg a jeex daal ci mois yu mujj yi ci ci ci laa ci laa sañ ci daara ji. 2020 waaw. Hmm. ci fin 2020 bi. Hmm. ci laa ko sañ ci defe naa bu mujj mu dugg nañ 2021 waaye 2020 daal moo gën a wóor. Hmm. waaye ci mujjantal gi la moom ci weeru mujjee mujj. macha allah ci lañ ci lañ ci lañ tàmbali daara ji di jàngale suñ suñu jàngal bopp ci lañ ñu tàmbali fa di jàngale. léegi 2020. bu 2024. ngeen nekk ci daara ji. lim bi jamono bi ñu fi yeewoo lim bi nu mu toll. Mhm. limu xale yi. Mhm. waaw jamono ji limu xale yi buñ ko buñ ko nattee xam nga dañuy am lu ñuy wax eh, ñuy jàngari féete ak ñoo xam dañuy jàngari ñibbi. Mhm. bu ñu xoolee lim bi bi lépp lépp moom ñu fi nekk ñëpp ñi mooy jàng ñibbeeg jàng jàng féete boo leen xoolee daañu war a mat ci ay soixante. jàng ñibbi. waaw yaakaar naa moo ciy dese. ñoo xam ne ñooy jàngari ñibbi. ñi jàng ñibbi ñoom ñëpp dañuy fay waaw ñi jàng ñoom nag loolu lañ leen wax loolu lañ leen wax ba ñuy dugg waaye nag <laughs> léeg-léeg waaw <laughs> bari na ci <laughs> loolu lañ leen wax ba ñuy dugg ñoom moo wax dëgg yàlla tubaarkaal daal ñi ngi góorgóorlu ñi ngi góorgóorlu ñi ngi góorgóorlu waaw ñaar ñaar bu ñu dikkee tamit loolu nga leen wax ngir jàngalekat yi ngay bëgg jël léeg-léeg ngir bëgg ñu njàngale mi ndax bu fekkee lu tolloon ci ndongo benn jëm mun leen a jàngal mm-hmm. benn jëm kase mm-hmm. bu ne mën jàngal ñun njàng ma du baax wala kon dana am ñum tànn ci ñoom di saxu seenum njàng ñenn ñi moom bàyyi lañ ci biir mbaam mi rek socc dañ ñibbi mën nañ fa yàgg loolu duñ xam dara boo gisee ñeneen yàgg dara duñ xam dara loolu moo ko indi mooy mbooloo ma bar na bar goo xam ne kenn di kenn bëgg leen saytu di leen jàngal mhm. léegi nag xam ne xëy na am nañ ay taxawaay ci moom wala am nañ ay taxawaay ci bërëb ba mhm. muy saytu ñooñu di leen taxaw taxawaay ba ca war mhm. ñi xam nañ seen waajur dañ leen fa indi ngir mel ku leen dénkaane mhm. ñoom da leen jàpp ku leen dénkaane rek hmm. waaw su ko defee dañuy sonn luñ ci njàngale mi daal waaw maam maam daanaka ñoom dañuy xëy ñëw ko dem hmm. bu fa yàggee lool nag ñu ne kii dama fa yóbbu jàngut njàng mu baaxul jàngaluñ ko mën nañoo kaas njàng mu baaxul waaye ñoom leen war duñ ko xanaa dañ dul fay moo tax ñu leen di bàyyi noonu rek waaw am na waaw moo mooy moo mooy mooy mooy ñi dul fay rek. waaw mooy ñi nga xam ne moom dañuy bari kaa yooyu. waaw dañuy bari kaa dañuy dikk indi la seen njaboot gi. pour sonal sonal gu ñu sonal njaboot gi tax na ñu indi leen foofu. ñu indi leen foofu waaye nag. Ah, ngir ngir bëgg leen a taxaw ci njàng. waaw tarxib loo leen ko mm. waaw. nga xam ne seen dërëm dirul mu dem ci. Mm. luñ ciy def daanaka léeg-léeg ñi. Mm. ñenn ñi luñ ciy def ci ñàkk tax lañ koy def ñi am pëstéef ni ci amee noonu la ci amee ñàkk doon daal waaw damaa xamul doon ndax boo ko boo boo ko xam ne ndax en général ñi indi seen doom daal benn doom hmm. ñaar ba ñett léegi dañuy jël ki yóbbu fee jël ki yóbbu fee hmm. euh, kii dañ ko yóbbu ci école ba kii yóbbu ko ci daara ja hmm. waaye kii yóbbu école ba du manqué daraam du manqué moom ci wàccaayu ah, dem ak ci léppam daraam du manqué kii ñëw ci daara ja nag moom moom bu ñëw ay dàll sax mën na ko bañ sax sax <laughs> wala damaa xamul nuñ koy tuddee moom loolu waaw loolu moom yaatu koy dox bu baax sax ñoom ñu ngi koy maanaam tey ah, jii ñi mhm. fay jàng di nii. Mhm. ñi fay fay normal ak mhm. ñi dul fay normal ñan ñoo fa ëpp. ñi dul fay ñoo gën a bari. ah ñoo gën a a ñoom ñaata la ñuy fay ah, jàng ñibbi yi. jàng ñibbi yi waxtu bii nii tembe. 2000 lañ leen laajoon ñu koy fay. Ah, wax dëgg yàlla. tey si loolu moom yàlla du fay moom. loolu ak ak na dëgg la ndax. ngir bëgg na dimbali la. waaye terewul nag ñu koy jàmbat ni daal daa seer ba léegi. <laughs> terewul am ñu koy wàññile ah. loo wax rek terewul terewul am ñoo ah, xam ne Sénégal moom noonu la mel waaw terewul mm-hmm. terewul ñu wàññ terewul ñu koy wàññilo mm-hmm. day mel dañuy dañuy bëgg far jàppee ko am commerce moo xam ne macha allah kiimaan da am commerce mm-hmm. utub dërëm te bàyyiwuñu si léegi bu ñëwee ci ñi internet wu ñi nga xamante ne ñaari ñaari ku ko yeex a indit loo ko yeex a indi daal di ko indi moom waaw ñaari ñaari nag jamono xaw laa nga yeex ko indi waaye ñun moom duñ baaxawuñ nag moom boo jotee duñu woo kenn di la soññoo ah, waaw woo kenn en tout cas daal bi nga ñëwee ñu wax la nga dégg ñu wax la xam nga li nga war xam nga ne sa hmm. def nga def ko hmm. boo ko defee ñun du tee lañ a def suñu sax bu allah ndax ci kàddu la ñuy daal ngir hmm. bañ laa soññ ci yenn ba gis ne loolu ay wax la woon yoo teg rek nag boobaa ñu doog a xool naan la ñu doxee waaw waaye daal nii waa na ko fay am ay weer yu bari ci ñi internat te du ko fay. dajale ay weer ah, weer ba ñaar ko dajale benn weer ba a xëy na léeg-léeg mu am waaye da weer moom kenn mësu fa kenn mësu faa dajale moom mhm. maanaam mhm. ñoom ñëpp nag yaa yor seen dund wala ci biir ñooñu dana am ñu yalwaani ci biir kenn du ci yalwaani waaw ñi nga ñëpp ñi nga xam ne dañuy fay ci biir daal ñoom kenn yalwaanawu ci waaye am na ay benn benn yu yalwaani léegi am na ay benn benn yoo xam ne ñoom fayuñu waaye taxuñu yalwaan ba léegi man man ma ma ma ma maa jël sama sama sama sama ay nit ñoo xam ni man maa leen wóolu sama bopp ñoo xam dañoo taqaloo man di samay dëkkandoo hmm. man leen ñii bëgguma kër gu nekk ñu dugg fa tàllal seen pot di yelwaane hmm. ndax eh, loolu la ma ci bañ ban ndax léegi koñ yi bokkuñ moo tax hmm. am na ñoo am na koñ yoo xam loolu mën na fa am waaye am na koñ yoo xam loolu mënu faa am waaw na kër yoo xam boo ci duggee am amaa man naa am duggin du yow ah, waaw waaw ma am na am nay bërëb yu ma tànn nag yoo xam ne moom loolu lu yàgg la ne leen ñii damaa bëgg bu añ jotee ngeen seen seen jëlle dee leen ci sóoraale ngeen hmm. tibb bool indil leen hmm, nga xam ne ñooñu ñu fekk ñu tibb seen ñu dem jëli bool añ ba indi teg hmm. so defee ñu ñun ñëpp añ man ak ñoom ñooy bokk añ ak gone ndaw yi ñun dañuy bool ñu ñëpp ñu bokk añ ah yow ak xale yéenay bokk waaw maa ngi ñoom ñooy bokk ah, lépp ñoo koy bokk ah reer beeg yëpp waaw lépp ñoo koy bokk li may ndekkee ci lañu ndekki li may añ reer ci lañu reer amul amul lenn luñ ma ber hmm. amul leen luñ ma beral tawaadu am dëgg la amul lenn luñ ma wax de yàlla maa ngi ñoom ñooy bokk napp bi ñu nekk basan gi ñu toog ñoo bokk lépp daal ñoo koy bokk ak sa amul luñ xaajali ko hmm. waaw waaw loolu de moom ab jàngale bu hmm. am solo la ndax day ta xale yi ñime la tey woyof googu ngay woyof ci seen biir day am lu muy def ci ñoom bu ñu màggee loolu jikko boobu bu am solo la moo tax yooyu tamit sëñ daara yi ab ab darsa ngi noonu ñuy ànd ak seen i seen ndong ci lépp nag. waaw wax dëgg yàlla lépp ñoo koy bokk. Mm-hmm. bu dee ci wàllu mm-hmm. moom moom loo wàllu ñëpp ci bokk yam ñi fay mm-hmm. ñu fay. la may jox ña lay jox ña allah léegi daara ji ndax am na wutur maanaam tey nga ni mafatixul bishri wala daaray taysirul asir wala daaray wakaana xaqan wala daaray nangam nangam. waaw daara ji yow sa daara ndax am na aw tur. waaw dama as asxaabul yamin la tudd. asxaabul yamin a macha allah dama ko darajaal nag Cheikh Mayasin Oumy Dieng asxaabul yamin lu muy firi waaw asxaabul yamin bëgg dox doxeen woowu doxeenu asxaabul yamin ok waaw tur moom daa war wuyu borom macha allah ci fànn yëpp buy nañ seenu tur ci asxaabul yamin gi ci wàllu ndeyjoor droite xanaa ñoom wàllu bind wàllu bind moom. waaw am na ci ittuqaan bu bu kawee xanaa. bind bi moom man yàlla daa dogal dama ko dama ko fonk bi moom dama ko fonk ba ku dikkit lu mu néew-néew. Hmm. dinaa fexe fi nga toll moom dama lay xamal ne li lii tax yow yow li ngay jàng sax tax gën koo mën a xam mooy loo jàng nga bind ko. Hmm. loo xas bind moom du loo ko fàtte. Hmm. loo jàng nga bind ko fi nga toll doon da nga doog a dal araf bi nga jàngatee da nga koy bind ah. waaw. ci bind bi bees yi nii jël nga xamante ne ko tari bind boo wàccee bind si bind boobu nga jël da nga koy bind ci àll ba da nga koy bind wane ko waaw da nga koy bind wane ko ñu toppal la ko la yàqee ci nekk jubbanti la araf yi waaw dama def booy booy bind nu mu demel bul bul bul mar bul fomp bul bul mar a ah, mar bul ko mar maanaam xam nga day dañuy bind mu dëng ñu mar ko mar ñu mar ah waaw mar ci làmmiñ a ñu mar ah, mar wala ñu tef di ko a ah, wala ñu naan ko a waaw loolu xam nga loolu day saltal ah, bu yàqoo jëlal lañ seen nga xoos moom set laa lay wax hmm. waaw te it hmm. bu fekkee daa ñaaw dong moom jurul xoos ndax kenn kenn xëyut xëy bind mu rafet hmm. waaw ni mu mel tey bu subaa bu bu ëllëgee bu man man man mën naa soppi boo bi dina jóg macha allah kon daal su ma la moom dañ lay tarbiye ci wàllu mbind ba pare nga man jàng léegi ndax ci daar ji am na fa ay xufaas jamono bi ñu toll am nga ay xufaas ñoo xamante ne dañoo mokkal ña fa jotoon a euh, mokkal nag nga xam ne ca jamono ja jàll mu nekkoon ay xale jigéen tolloon ci ñett ñett xale jigéen waaw ñoom nag yàlla daa dogal bañ tàmbalee seenum jàng xam seen waajur dañ dañ leen a jël ñi ñii dañoo dem école ba ñii dañoo dem liggéey mhm. jamono jii daal am nañ ñu wàcc ak ñu ak ñuy waaju wàcc ak ñu toll ci bëgg a ak ñoo xam ne defe naa ne balaa balaa yàgg dara daal dinañ mokkal moom. ay ay xale yu jigéen ay xale yu góor. xale na ñett ñu góor ak kenn ku jigéen. xale jigéen yi fa féete. waaw ay góor a di jàngal wala ay jigéen. xale jigéen leen di jàngal. ah sa soxna waaw. ah macha allah moom day jàngal. waaw loolu de moom moo gën a kii. waaw xale jigéen yi féete moom moo leen di jàngal. Ah. waaw ah sa soxna kon jàng na alxuraan. waaw jàng na alxuraan. ah ñi yow yaa leen féete wala am ku ku lay jàppale. danaa am ko man dong du ma féetoo góor am naa keneen ko xam maak ñoom ñooy bokk nekk hmm. nga xam dama koy beral ñenn ñi jël ñenn ñi féetewoo leen waaw ñi nga xam ñoo gën a mage nga xam ñoo gën a yor moom man maa leen di yore sama bopp hmm. Hmm. ñi nga xam ñoo gën a mage gën a naqara ñooñu maa leen yore sama ñi nga xam nag neex nañoo tàgg neex nañu yor ma féetewoo ko ñooñu waaw ñi nga jël ni maanaam ñi lay jàppale jël leen ñu lay jàppale ci njàng mi ñooñu moom ñu ñëw ngir jàng ñooñu dañ leen di fay dañuy jël ñoo xam dañuy ñëw mu nekk seen métier ñu leen di fay ñu jàngale bu weer dee ñu fay leen seen xaalis macha allah waaw ñoom it wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ te respecté nañ ko hmm. ah, respecté nañ ko lool ñu hmm. ëpp it ay mbàkk-mbàkk lañu doon ñu ci ëpp wax dëgg yàlla waaw kaw hmm. a moom muy suñ la tudd la mu mag waaye day jàmbaar lool bu mu ñëwee tamit dama ne ko man liggéey du la suñu tubaab lay liggéeyal ci alxuraan ndax ñun suñu tubaab alxuraan dong la a ak sa waaw kon kon man liggéeyal man alxuraan laa liggéeyal te loolu fu ma ko may liggéeyal naa dem liggéeyal fa mm-hmm. moom loola moo ñu boole mm-hmm. xam naa li ñu desee ci ay mm-hmm. minutes bariwut Serigne Bachir dañ ci dañ koy tënk rek ci sa programme njàngale maanaam tey heure yi ngay fajar gi cinq wala quatre wala xeet yooyu ak euh, ni ngay ni sa barnaami ci journée bi sa programme ni nga koy doxalee ci journée bi waaw bu njëkk ba nag bu dee njàngoom cosaan mu njëkk ma nañ daan njëkk jàngee mooy yow yow yow cinq wala yow quatre heures wàcc wàcc njël mm-hmm. huit heures nga duggaat wàcc une heure mm-hmm. bu trois nga duggaat wàcc ginnaaw takusaan léegi loolu bi ñu ko doxalee ab marax nga dugg wàcc vingt mm-hmm. bi loolu jàll nag bi ñu ab diir nag moom dañoo sopp programme bi programme boobu nag ñu ngi ko soppoon ci nekk suñ Mour Baar moom ma lay wax. Hmm. moo soppoon programme boobu. Euh, bi mu soppee mooy ni ñuy doxalee mooy léegi bu ñu yeewoo quatre heures hmm. danañ jàng ba huit heures hmm. ci njël gi bu ñu jàngee dañuy wàcc bu ñu wàccee léegi danañ amaat ñaari waxtu dix heures la ñuy duggaat pour jàng. ñaari waxtu yooyu ñuy war a sangu war a ndekki yi ñuy war def yëpp jigéen toog ci lañ koy def su ko defee dix heures ci lañuy duggaat bu ñu duggaatee dix heures midi trente la ñuy wàcc bu léegi duñ dugg trois quatre heures la ñuy duggaat hmm. quatre heures ci ngoon buñ duggaatee quatre heures ci ngoon hmm. ngir diggante boobu ñu mën fee nopp buñ añee mën a nelaw hmm. xel yi mën a noppal xel surtout xale yi seen xel yi noppal dañuy a baax buñ duggee quatre heures nag quatre heures gi moom ngoon gi ak marax gi daanaka dañ koy maasal parce que diggante marax gi ak ngoon gi trente minutes yi ñuy jàppoo rek pour waajal timis moo fi dox waaw waaw defee buñ duggee quatre daanaka vingt et une heures la ñu wàcc presque am trente minutes ci diggante yoo xam ne ngir waajal timis ngir waajal tamit la waaw bu dee ci wàllum njàng mi nag buñ xëyee buñ ku jàng si bind ba tare ko noppi hmm. léegi au lieu que ngay jàng bind tari bi nga toll tari hmm. bëgg a jëlaat nafar kon tari hmm. léegi dañuy def boo jàngee bind ba tare ko ba noppi da ngay boole sa bopp isib bi ak sa nafar ngoon ba ngay boole ah. léegi ñaari tari ngay tari muy bind ngay tari nafar bi ak bopp isib bi koy boole wenn tari nga koy tari loolu nag ngir mu mën a nekk day day laaj bind bi mokk nga xamante ne ngoon gi ñoom duñ tari waaw duñ tari waat ngoon gi ngoon gi la ñuy def mooy seen bind bi ñu war a tari njël euh, njël moom la ñuy jël jàng waaw ba mu tàmm ko boo ko ci formé ba mu tàmm ko programme bu yomb la waaw léegi moom ñu ngi koy commencé tàmm moom waaw ah, macha allah hmm. kon Serigne Serigne ba Bachir fi ñu war a yëkkatee jotaay bi dafa mel ni jot na hmm. léegi dañ lay bàyyeeg sa kàddu gu mujj ak loo xamante ni moom nga hmm. moom la daara ji aajowo fi mu ne nii nii loo xamante ni tey aajowo aajo woon ko trop trop nga mm-hmm. bëgg ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàppale la ci. Mm-hmm. Mm-hmm. nga defaale sa kàddu gu mujj Cheikh Mouhamed Bachir. moom da xanaa kàddu gi sant rek ak gërëm. tey rafetlu liggéey bi ak taxawaay bi. Eh, di ñaan suñu borom li ngeen ci bëgg muy liggéeyal alquran suñu borom defal leen ci lu kawe njot te ñu daje ci ngërëm ak alquran dañ bokk lépp eh, liggéey bi ñi ngeen ko àndal seen mbir kawe lool barke bi alquran la ñuy def comme kàddu gi mujj nag mooy ñu xam ne ñun téere bi daal lañ am Mm-hmm. moom lañ am mm-hmm. buñ ko jàpp moom lañ am mm-hmm. buñ ko jàppul moom lañ am mooy suñu lépp itam waaw ni mu ne képp ku ko ku ku ku ko dëdmal ko topp di nga jub waaye ku ko wan ginnaaw te xëy doo faaw te da ngay dund dund ko xat te boo faatoo boo dekkee da ngay gumba doo dekk wala ay bët kon moom lañ am nañ ko jàpp kon suñ tuwaatee nga xam ne daf ne téere bi ci laa yaakaar mucc adduna ak alaxira kitaabun bihi narju minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min al kalb kon téere bi kon gannaaw suñu tubaab moo moo moo moo wóoroon noonu ci téere bi hmm. a ak ñun kon hmm. lu waaye jàpp daal loolu téere bi jàppoo ci daal ah, kon téere bi mooy lépp lépp ci téere bi la nekk hmm. ah, ku ci nekk suñu boom di la ba ah, di nga di nga waaye nag dootee nga am dal dal gi ñu dal gi da nga koy am waaw daal da nga koy am bu dee daara ja lañ luñu luñu lu nga xam nag danañ ko soxlawoo moom moom xam naa ni hmm. jamono ji daal lañ gën a yittewoo bokk na ci ay basang daal basang moom fi ne bokk na ci li ñu nga xam ne moom hmm. ba na hmm. waaye la jàmp nga xam daa jàmp moom xam naa ne ay basang bokk na ci macha allah la jàmp daal moom ay basang bokk na ci waaw bokk na ci eh, loolu daal moo xam naa ne moo ci gën a jàmp macha allah donc nag daara lim soxla bari na lim soxla lool sax eh, ñi ñi ñi ñi ñi xam daara hmm. dinañ xam doxin daara dinañ xam dinañ rawatina daara ju bees hmm. rawatina ndaw luy ndaw luy góorgóorlu dinañ xam lam soxloo ci lu bare bari waaye li jëm comme da ñu ko laaj moom hmm. daanaka dawuñ sax inshallah di ko faral di wax ci yu mel noonu am solo sax nga xamle ko waaw waaw waaye xamle moom xamle ji moom da ci am solo kon nag ñun lii ñun ñoo ciy sant di wax daal yàlla na suñu defal ñu tawfeex joo xam ne yéene ji ñu am ci liggéey alquran suñu boom kat nal ñu Euh, defal ñu ay xéewal mhm. fu ñu bëgg mu àgg fu mu àgg fu kaw njort mhm. barke alxuraan karim di nuyu suñu waajur bu baax nag di leen ñaanal sëriñ Muntaxa Jeng mhm. moom mooy suñu waajur moom sëriñ Mbay suñu Umi Jeng waaw moo ko fi nekkal ñu koy siyaar di ko ñaan di ko ñaanal gudd fan ak wér di suñu waajur jigéen soxna bu sa di siyaar ñëpp ñaanal ñëpp bayuñ kenn ñu doon bàyyeeg ñëpp bayuñ kenn yàlla suma defal ñëpp jàmm ak tawfeex yow ñu lay siyaar bu baax di la ndokkeel di sant bu baax jataay bi sama mbir ci man dong la nar a yem moom mhm. loolu wax di yàlla man mhm. sama dund ci àdduna amul njëriñ dama bëgg a nekk pour pour nit ñi waaw bëgg moo fi nekk pour sama bopp nekk nga fi nekk pour nit ñi nag mhm. pour lu ma jariñ jariñ leen doon ba tey tamit du du nekk ngir topp bànneex nit ñi rek waaw kon nag ñi ñi ñi ngi koy ànd ak baax a baax di sant baax a baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu aleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu jërëjëf euh, Cheikh Bachirou Dieng nekk jàngalekat fële ca diwaanu nit ni tey moom lañ àndaloon ci sunu jotaay bii du jotaayu daara mbokk yi dégg nañ sa wax kon ñi nga xamante ne ñi ngi ñi ngi lay siifur fa fi dalika fal yatanaafasil mutanaafisuun ci téere borom bi subhaanahu wa taala ak lu mel ni lu jëm ci yàlla rek ci la ni man di rawante kon li daara ji aajowoo dégg ngeen ko ñi nga xamante ni yàlla euh, dogal na ñu man nañ ci participer ci loolu muy ay bassin ak yu li ngeen nekk tamit mooy métier bi nga xamante ni mooy métier nit ñu baax ñi muy jàng jàngale mooy mihnatul anbiya wax nga ko ci sa biir wax boo fi naree nekk lu dul jàng jàngale moom daanaka yàlla boo fi nekk te loolu mooy li nga xamante ni itam moom la Sëriñ Tuubaa wax man kaana fi qur'ani dajtihaad ma al ulumi fa huwa xayru cheikhul xadim radiallahu taala anhu nee na képp koo xamante ne yaa ngi ci alquran farlu lool ci xam-xam nee na kooku mooy waaj a dëgg nag kooku muy gindeekat dëgg la kon seen char gi ñooy ñooy ñooy ñooy góor yàlla yi ñooy waaj kon wéy leen di ñu topp ci alxames bu jot fii ci seen jataay daara yi seen télévision daara yi Kamil TV ñu leen jox dig daje ba alxames bii di ñëw ak seen beneen mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم